Sirha mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah làmb ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg bu baax a baax a baax na ñëpp am jàmm ñi tawat yàlla nañu am wér yaram ñi làkku yàlla na leen suñu borom yërëm ñi nekk uh, caabi féete leen ginnaaw yàlla na leen borom bi may féex ñu moomaat seen bopp mais à chaque fois comme ni ma koy defee ah saa yu may nuyoo uh, dafa am ñoo xam dama leen yi beral nuyoo ñett rek la kenn ki. Jaguar États-Unis yàlla na la yàlla may jàmm nga génn si jafe-jafe yi nga nekk Mohamed xaritam maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax saa Kajoor yàlla na la yàlla may jàmm moo ami moo frère ba nga ñibbi si waat wala xadi ñëw fekk la si keneen ki cartouche yàlla na la yàlla may jàmm alors ñu ngi ak euh, tey benn euh, invité du ma ne sax invité la parce que géejawaay la géejawaay moom miin naa ko ah. te ñun ñoo bokk làmb ji ñun ñoo ñoo ñoo nekk suñu biir di liggéey moom muy pratiquer di dóorante man may wax <laughs> muy ñaabu ndaw ñaabu ndaw lañ fekk si tey borom bés bu mag bi incha allahu bi borom bag bi wala BFM wala xaw ma nan lañ koy tuddee ah, le 23 incha allahu bi fii ci gunaas lañ ñëw fekk fi waa gunaas maa ngi nuyu waa gunaas yëpp yëpp ñi ma miin ak ñi ma miinul ñëpp fii moom sama saayit la ko alors ñaa euh, maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar mais damay nuyu kenn ba pare ah, sama doom sama doom maa ngi lay nuyu ah. yow xam nga quoi du ñu wax tur bi. <laughs> moom sama per la moom moom tam maa kooku sa papa moom dina comprendre. Ah. waaw jeex na. aja <laughs> eh, ma bàyyi la nga nuyoo gars yi. ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waay yu xam ma mm-hmm. du nuyu sama koñ suma quartier fu ma fekk nii Gunaas waa quartier bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu sama xarit yi sama ginnaaw xam nga ñoom laa foo ndool depuis temps booy ba léegi ñuy ànd. Mm-hmm. dara musul ñaaw. xam nga waaw di nuyu waa àdduna di nuyu waa Sikori. di nuyu képp kuy bëggee ñaabu ndaw waa parcelle Pikine. xam ñëpp. maa képp ku may bëggee rek waa Baxdaad ñëpp maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp Guédiawaye zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 du nuyu sama papa bu baax maam Thionou Nooré Nooré ni protège waa indal sikoori indal diwóori baabul laahi baabul janna maa maa lay bëggee lu yaatu dundal bu baax dundal bu yëg ko sa dund gi am na njëriñ waaw jantal maara alors euh, Niang bu Ndaw écurie Walo Niang Ndaw ñaata combat man bëri naa six combat cinq victoire benn défaite. cinq victoire benn défaite. waaw kan moo la daal. sama <laughs> bu Faas moom bàyyi na bëree sax léegi. Mm, mm, mm. moom daan mooy jour combat guy gi booy ñaa la woon. ok ok waaw. boobu la cinq victoire. ba léegi yàlla mu suturaal. yàlla na yàlla bi mooy yàlla fa ñu cat waaw bi mooy bi mooy yi nee examen la yéen ñaar ku xam. Euh, ñaabu ndaw xam kii di euh, armée bu ngéwél xam na ñaari ndaanaan yu daje la dafa mel ni kii ren moom alaakul alim dajale woon rek par force yéen ñaar dajale woon par force non maanaam hmm. hmm. moo ñu boole man tey bëgg naa su ma toogee wax sama palmarès si làmb ñu ma daan hmm. waa làmb nagul ma xam bëgg naa loolu quoi bëgg naa ñoom su ma waxee toog ñi ma daan ñoo bëreel. Mm. làmb nangul ko quoi. Mm. moom muy xale def ay ay preuve ba mm-hmm. def suma ay preuve làmb boole mu nekk làmb capital làmb génn. Mm-hmm. waaj nañ si bu baax a baax si plan yëpp. Mm-hmm. xam nga di ñaar suñu dafa la ñu ndam. incha allah mooy mooy wax daje bi par force maanaam dafa mel ni kii ñaar ñoo xam ne dañu war a dem. dëgg la ku nekk def preuve am ngeen nekk ay révélation ci làmb ji. Mhm. ngeen war a dépasser beneen escalier. Mhm. yéen ñaar par force da ngeen waroon daje. maanaam mënu leen woon éviter combat bi quoi. non yow am na keneen ku ñu doon proposé. non non am na ñeneen ñu mais moom moo gën a nekk làmb soog. moo gën a nekk daal waaw su ma ko daanee man moom moo gën a nanguloo. Mhm. nangulee ko ko ñeneen yaa ngi dégg. léegi moom moo tax ma jël ko quoi. mais du dara. xam dara quoi moo tax ma jël ko mais. lan nga ne naanaan la. non non champion la man dama bële ko champion. dafa dafa woon ay problème kon du bëreeg man. Hmm. non non kon day toog xaar fële ba jamono neex. en tout cas mbër bu saf nga jël. waaw noonu la noonu la parce que parce que. parce que mosuñoo mosuñoo bëree. Hmm. làmb bu bu yomb. Hmm. waaw man suma carrière boo xoolee sama début carrière. mosuma bëree combat bu yomb sama combat maag bulon ba bulon ba bulon si meeku woo ñëpp dañu ne woon ñaari tey lay dee. waaw te benn song laa ko song mu jeex. xam nga. mais loolu moo lay neex wala waaw loolu waaw loolu moo may neex parce dama bëgg su ma simmee ko ñu ne ñaar teel ay déet bu ñu jàppantee la am du yàgg. Hmm. loolu si parce que parce que si liggéey bi la. Hmm. nga gis nga masse ak volume ak doole dafa utee. Hmm. mais maa ngi dégg ñu naan xaw ma moo la xaw ma mais loolu man gisuma loolu. man 180 kilos laay squat. yaa ngi dégg. 180 kilos. laay yaa ngi dégg. 180 mm. kilos ku koy toog di ko jonk di jug moom. Mm. amul lenn loo xamante ni mën na ma ak yeneen liggéey yoo xamante ne nii maanaam. Mm. mënu ma ko expliquer nit quoi. mais comme amul amul benn risque si si yéen ñaar. non non non amul risque ay xale la ñoo war a bëri rek. xam nga bëri teg ko ci yoon def fulaak fayda parce que amateurs yi ñu ñuy xaar. adduna ñu ñuy xaar. ñëpp ñu ñuy xaar quoi. alors. gars yi bi ñu ko jëlee amul gars yi nekk ci suuf ne la non combat bi pour lan nga jël ko noo mënoon nga bàyyi mënoon nga jël bu gën a nooy wala nangam sàngam. non c'est que c'est que c'est que c'est daa am ñoo xamante ni man ñu xamuñu ma ko waa ñooñu maa ëmpale. waaw mais man say poids lourd laa jàngee bëri mais ñi ma ñi ma xam dëgg waa xam nañ li may wax ko waa waaw man dijji mënumaa jaaxal nit mënul nga ne ba ba fees sama bët. mais pourtant moom dijjul de. waaw waaw parce que parce que nee moom ëpp volume. dama dégg ñu naan ñoo moo la ëpp volume. waaw waaw dama am ay jaar-jaar si làmb. xam nga am ñu ma tete si làmb. daf ma champion di ko nuyu xam nga moom bu ma déggee xam ne li may wax. dund ak man loo xamante ni tey maanaam jotagul ma waxoo. mais bu jotee wax. kooku mbër la waaw mbër bu mag la champion la. mi ngi fii nii waaw mi ngi ci nekk ak yow nekk ak man ñiy contact chaque jour. xam nga ko bu baax ñuy contact man ak moom chaque jour. ngoon ñoo war a kooku mën na sa waay ñett. bu te dire. voilà kon kon kooku mënu ma fees su ko daal ko daal la rek de. adama ngoon mënu fees sa bët. la rek yi takk ngeen mu ñuy contact di bëri sa contact ak Lac de Guiers dañuy bëri di mbëkkante di dalante. man sama man déggoo mën mën na mën na nga gis ñaan yi nii xam rek moom waaw mu nekk booy bu xaw a yarul nii mais <laughs> buñ duggee si biir géej bi damay soppeeku de. leneen ngay gis. mais bu daan ñaa ñaa bu ndaw kiiwul de nu mu tëddee ñaa bu ndaw ndawul. non damaa ndaw. non ndawul ba ñu koy xeeb naan armée moo ko ëpp volume ak jàppal bàyyi mais volume du bëri nag. ñaam ndaw cax la quoi. ñaam ndaw cax la waaw. maanaam. ñaamu ndaw du tur. waaw du tur. waaw cax la dàqantal la. voilà dàqantal la mais ci kanam. Mm. tur bi di génn. Euh, loolu wax la dégg-dégg la laaj. waaw loolu ci kanam la des na. mënuguma comprendre. waaw mais alors combat bi ñu bëri nee nañ raag par force lay am xeex par force balaa bari di xew. man waaw laa nekk igri waa laa nekk igri amul ku fa nekk te mënoo xeex amul ku fa nekk te mënoo takk gan. kii da mun dañuy xeex dañuy. sato ay armée ay armam la yor de. ana bu xeexee man bàyyi génn su xeexee man day bàyyi maa ay missile maa gën a gudd loxo fuuf. Poutine moom Poutine da koy jox ay arme Poutine arme Poutine yi la yor de. man nikkereel laa yor ay boobu nikkereel. dama koy place dem ñaari rek bàyyi bu dem. yéen a ngi wax ak seen copain yi. arme ngeen wax de arme. xam nga armée kooku bëri nay ngànnaay nag wax dëgg yàlla préparé say ngànnaay de waaw mais yàlla baax na rek moom seet naa ay combat am yow saa nga ji moo tax ma xam ne du nekk combat bu voilà du nekk combat bi yow moom bëgg na combat bi mais mag na bëgg combat bi ñaar fukki junni yoon te moom instant bii nii nii bu toogee wéet dina xam ne am na lamb hmm. dina rëcc li mu ko doon jëlee bu baax ci côté bi ndax waaw parce que jàmbaar lay bëreel. pourtant gis naa gis naa ko démb euh, seen seen seen face à face bi ngeen doon def. waaw mais un gars te referee dala doon xool di reetaan rek. waaw parce que waaw parce moom. dafa mel ni dala xaw kii daal minimiser parce que parce que moom. waaw moom xam nga moom daanaan la champion la daal. da ko oyofal quoi waaw moom dafa maa bëgg armée. waaw sama fant la moom dafa ma bëgg moom ma gisee xob day sedd. kon nga jox moom moom ma gisee moom yow day manifesté wu loolu su moom la nekk maanaam moom yow mënu ko muñ. éviter nañ ko dimanche si guddi. moo tax munoon ree rek. waaw de bu moom booy bu rek moom xam nga micro yi la koy teg. xam nga sa làmb day jar waaw waaw. ñaa daal moo lay jaay. voilà boo saa yi reetaanu lool de. billaay loolu lool de. billaay loolu lay na fi façon lamb bu nekk. bëri na fee ku nekk mais xam nga làmb bu am coow nii arme mi si àdduna am. non arme mu ngi yow déedéet non non non ñaa bàyyi yoon non non. ñaa arme na ay bés de. waaw non yow ay bisam gis nga ko mais dama làmb ji amee coow nii am bës nii mu ngi koy doog am moo tax muy kontaan. bii daal moo gën a moo tax buy siij rek kontaan moom bu mu da jàpp rek daan xamul maa gën a bëgg làmb ji ñaar fukki junni yoon. yow tey boo sañoon bu abine pirip da ngeen di raak door a bëre wala da nga bëgg ngeen bëri mu ñàkk ku ne dem mu ñoo ñàkk bañ a xeex armée armée bu ngéwal dina ngoone maaloo ba sàmm ku lu mës a sekk ndaat ma faale ku ma ndaat hmm. faaw ñu xeex doomu la joor bi ngay waxal yow faaw ñu raak mën a yow jëfalante waaw dóorante ay coups kànkàn. mais loolu damay ragal si micro bi koy wax. non Albé damay yëkkati loxoom rek. non non mu Albé mënuñoo ñàkk xeex faaw ñu xeex. dëggantaan Ndiaye. faaw ñu raag lii doo ko def affaire mbër wax lii. bu subaa nga ma ma ne la moom man ak moom dañuy raag ba pare doo ko bëre. loolu mënuñu ñàkk. bu ko nangoo dañoo namante su yaram yi moo namante. bu ko nangoo su mu mun nangu mu xeex mu bañ day xeex. man maay cadre may bëre maay daan maa ngi gudd loxo maa daaka xeex. si kàttanu yàlla incha allahu rabbi yàlla ñu yàlla suturaal may ñu ndam. seen copain bi kii na de. seen copain day door yeewu de. non man yeewu man man yeewu naa bu yàgg. di waaj dem dun ya man yeewu naa bu ah, yàgg di kii leen dina xeex dina di nii nii nii nii. nee yàlla nee yàlla man sigóor yee la indil sigóor yi indil diwóor yi. armée di la ree rek. dégg nga ma. di la ree rek nga man man man bu ñëpp nelawee man si ñaay bi laay fanaan sigóor yi. di ko ñàkkante man amul dalay ragal lu ne si moom man bàyyi daaru dama faa bokk di nuyu waa Thiolli bi ma dëkk. Mm. waa daaru Moussi waa Thiolli sama dëkku papa. Mm. xam nga mm. di ñaanal sama mag bu fa tëdd ñoom man ñu bokk ndey baay maa ngi koy ñaanal yaa ngi ko xaare ko àjjana muy sama mag xaadim di ñaanal Cheikh Touba sama mag bu fi jugee doon toog sama cumbukaay Ahmed Sow doomu jàmbaar gars yëpp maa ngi di ñaanal déglu ñëpp di jaarale itam sama doomu ndey everybody papaam yow man bàyyi daaru laa pire et fans yi waaw fans yi arène nationale sa deuxième combat arène nationale la. waaw grand combat la. deuxième grand combat waaw parce que dama santaat booy hmm. hmm. ba ma soog a jug kenn gëwuma woon. Hmm. kenn gëmul woon ne naa nekk mbër. mu tag seen tubay yow bi ngay door a yow de ah. man xamoon naa ne wallaahi. xamoon naa ne ci champion yi ngay bokk. ndeysaan ak yeneen boy yi ma gis. dëgg la xamoon naa ne ci champion yi ngeen bokk. dëgg la te incha allah. incha allah fii ak deux ans yow ak mm-hmm. ñoom armée ak yeneen boy yëpp mm-hmm. yéenay téye làmb. waaw dëgg la dëgg la est-ce que loolu yéen a xel bu baax. waaw moo tax tax moo xam nga tey man rus naa sax nekk si baisse de forme. Mm-hmm. loolu man kese la may def. waaw boo waxee ñu ne Niang bu Ndaw dafa bokk si espoir du Guédiawaye parce que Guédiawaye bëri ay champion man maa fi gën a nekk xale Guédiawaye maa fi mujjee ñëw ma reyante reyante balaa ma li ma bàyyi xel si géejewaay loolu nag dafa rëy. yombul quoi. léegi nag loolu boo ko amee nga def fulaak fee teg ko si yoon ma làmb moom deseel. làmb. même bu dee sëriñ maa ngi koy jaam maa ngi koy tarbiyu maa ngi koy sukkal maa ngi koy raamal ñi xam dëgg xam na li may wax. kuy dem ba ay gàmbi saison bu tëj ngay entraîné ji si àll bi hivernalu xam nga. di moytu waaw di moytu dundul. doo doo seeti kenn quoi. non <laughs> yow man ñi laa foog ah, ñii ngeen ma xale la xale bu ndaw la bu seet kenn kenn kii moom moo gën nekk woyu moom kii moo lay dugal kii moo lay jox <laughs> moo lay dugal ci affaire yi bi ne tekk bi borom ah, tent kii borom la sama doom ndey la kii moom moom moom sées hmm. moom moom parcelle kii su may bëree day day jël ñaari kaar day jël ñaari kaar ñaari kaar lay jëlee foofu wax rek la mënee wax rek la ci am hmm. mais ñaa mooy pousse mooy passe. mais doo leen ma de ñaa boo ko gisee da ngay ne amul doole mais wow kooku la def tant que yow doo xam mooy. effet la effet noonu la demee nag. da ko loolay effet day def effet affaire bande yooyu day def ñaari camion laay andi xam nga bee paas ñaari car rapide laay andi mais bii paa ñaari camion laay andi. xaaral xalaat jàngale. njëmbat laay andi ñaari njëmbat moo jóge parcelle ñëw géej. effet yi. bu yàgg ñun moom ak ñu xam ak ñaa moom. xam nga ne ñaar dof yëpp ñu ngi ci ginnaawam te ñun ñooy dofu ñaari ndaw yi loolu moom wër na Sénégal te ñun ay wagalañ dañoo sob dof dof yëpp a ngi si ginnaaw kii nii mooy dof international bi. waaw yaaw booy boobu sama ginnaaw. yaaw dof international xam nga problème am ñun. problème après nu ñuy def ba loué 16 pour suñu tànn beer bi. waaw kay yéen ngeen tànn beer. doo ñu bàyyi dañuy xool ko tuddee. ku ñu tuddee tànnbéer bi dañuy wëri saa yi. dañoo soob. tànn tànnbéer invité nañ ko démb. démb na ko wax na ko sax. waaw moom moo sibul naka waar rek na jël gàrdam de. armée yow ñaa ngay non am nga problème barki borom daaru. non man lenn laa xam mooy xam dafa juum ba muy ñëw tàggoowut. dafa waroon tàggu avant muy ñëw. dafa juum waxal ma ko lool dégg ko teg baaxul. waxal ma lool loolu rek laa amoon dafa juum. wuy ma yow da ngaa juum yow. billaahi wallaahi bu suubaa nga xam da ngaa juum. bu boobaa nga xam ne yow lépp dëgg la billaay walaay ñu ay ay waga lañ dañoo sob agaay ah, dañoo sob ay waga ak ay band la ñoo bale yëpp lañ dëgg non non I am to be from the ghetto bale yëpp lañ dëgg te nee na moom mooy arme bu ngeel eh. te arme bi génn waa arme bi dañ koy jox arme mu téye arme yi ñu koy jox hmm. da bu baax fu mu ci waddal ñaage na ko forte gi ko jàmp ko neexul. noonu la fa demee naa tous la mi noonu ah amul luñ dara leneen luñ ci teg yow gi wax ma dama lay sant wax nañ wax na bu baax rek xam ma mm. sa liggéey ci làmb rafet na parce que yaa xool xoolu booy ay kii espoir di leen génne xam nga dafa génne ay booy yoo xamante ay champion lañ làmb ñu leen bàyyi xel ngay liggéey liggéey bu rafet di santaat ñëpp ñu may jàppale rek sant tam xam ma maa ngi sant euh, waa Guédiawaye gi yëpp. da ngay entraîné ji nii. waaw damay damay dem kontaan. combat bi des ñaata fan. man man ban suba la ma damay kontaan. tey lan lundi. cinq jours moo des. man non non doo noppalu ko nag. bañ a blessé yooyu noonu. xale du sonn de. non non pour nga moytu quoi moytu tuuti quoi. déedéet da ngay daw rek bàyyi cukki cukki rek. damaa soxla ba yàqu. instant yii jàpp goo nii. dañ maa yónnee yàkkamti ma doyalu ma. Ah, parce que lamb ji bu ma ñëwee gis nga gis nga gis nga gis nga su ma su ma laajee sama bind li may laal ba niin ba takk ngeem am na daw bu may daw noonu gis nga doo ba doon ah, ah. waaw loolu si biir ndox laa koy defee moo tax may foofu foofu noonu xam ma di xaw a soulager sama bopp gis ma may daw di cëfër cëfëri noonu waaw yii la parce que xam nga ma du ma taxaw si biir sama xel day dal hmm. ma xalaat dara yi suñu borom mooy ñëw da tey ñaar day ñàkk hmm. xam nga te ñi ngi ñaan suñu borom sutura ñu may ñu ndam hmm. mais pour ñaak entraînement wala sonn wala xeex wala dara yi xalaat mos dara ñu may jàppale xam nga di sant ñoom préf préfet maa bu baax a baax jàppale na ma si combat bi xam nga di nuyu doomam Lamine Lat Diop bu Géejawaay maa ngi koy woo xam nga gis nañ lu baax lu ñu def si Géejawaay mu wax ni ko rek ñun ay xale lañ ay xale ñoo ñuy topp xam nga mu bu mënee jënd ay ticket lu ñu dina si biir rek mool na xam nga di ko woo bu baax a baax a baax di woo Ahmed Aïdara di woo Moulay xam nga di woo sama père Aseras maa ngi koy woo bu baax a baax xam nga assurance maa ngi koy woo bu baax. asu ah. tunkara waaw. waaw asu tunkara booy yi nee na ñoo sax ndugg bi mafia bi dof yi dañoo jàpp si bu baax a baax a baax yaa ngi dégg. di santaat ñi nga xamante ni ñoo may jàppal tam maa ngi santaat tam Pape Fall Fala maa ngi sant Fala bu baax Fala da siy jàpp di sant waa Kayar di sant waa Bayax di sant Jili Ndeye Mar xam nga Cheikh Diop américain I am very happy for you nigga xam nga thank you so much maa ngi bëgg si yow di la bëggee di sant tam Assane Ndaw États-Unis suma xarit la suma waay la maa ngi sant bu baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal jàmm képp ko xamante ni rek mi ngi may bëggee di ma jàppale quoi mënuma lim a Fall Global Tex waaw ni ko am kóllëre ni ku baax ni ku sonn si man waaw maa ngi koy sant bu baax a baax Assane Fall waaw waaw waaw koñ bi yëpp maa leen maa leen maa leen nuyu di baalu koñ bi yëpp àq parce que làmb ji mu taxee wala xam nga sonal na leen gars yi simb si yàgg a ma ñëwaat fii open presse bi xam kon bi yëpp maa leen di baalu àq ñoom mooy seen doom laa lii nii suñu borom moom ko nattoo rek mu nekk sama liggéey mais na ma ñëpp jégal baal ma àq yooyu incha allah. jaajëf euh, kon mi ngi noona ah, euh, sant na gërëm na woote na woote goo xam ne xëy na am na ñu mu fàtte. mais comme ni ñu koy waxee rek les jeunes yi nga xam ne dañuy pratiquer sport surtout làmb làmb dafa metti préparation dafa metti ñu la fayee sax liñ lay avance après dootoo desee dërëm. lépp da koy dugal ci làmb ji. Hmm. moo xam ci wàccaay beeg regroupement beeg yëpp. kon li ñuy ñi nga xam ñoom ñoo autorités yi nañ ñu si jàpp bu baax ak CNG bi tam xam nga ma lancé wala ci loolu appel waaw ñoom ñu jàppale quoi ñun ñëkkul la ñuy ñoom hmm. wala ñuy xëccoo ak ñoom CNG bi suñu hmm. ñun seen ay doom leen hmm. règlement yi métti na làmb ji wéet na ñun mënuñu xuloo yéen dañ leen di ñaan te yàlla rek tax bu fekkente ne ne ñun mun nañ toog ñu wax leen ñu nga xamante ni moom lañ bëgg ngeen dimbalee ñu ko gis nga ay xale soo ñëwee da ngaa uuf da ngaa war a dimbale ay xale da ngaa war a xool ci luñ bëgg ngay doxee noonu mais boo ñëwee rek te sa règlement mbër bu ndaw préparé ay at ñëw nga bëgg a bëriloo cinq minutes dafa métti quoi mbër bu ndaw la moom waaw mais dafa dafa am ñoo xam ne duñ bëre nag dañuy ñëw di liwtoo ba loolu am na mais xam nga waaw mais tam xam waaw léegi xoolal ñu ni ah, sa coach rek moo dugg si biir géew bi ku ne xëpp galaay sa galaay si bitti nga koy si bu yàq aar bi lamb dafa am cosaan dafa am culture dafa am loo xamante ni suñu maam ñooñu ngi fi bàyyeel ñun jéggaani wuñ MMA jéggaani wuñ sport sport kenn suñu yëf la ñuy def CNG bi man moom Niang Bou Ndaw seen doom maa leen di lancé message message bi ngeen wax ngeen bàyyi si xel bu baax quoi. Mm. mais ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax. jaajëf loolu message yu mbër bi la bu bokk ci biir làmb am na droit pour lancer message boobu nañ ko oyofal rek. nañ ko oyofal bu ñu ko oyofalee rek affaire yi dina neex quoi. ñu gën di communiquer ak les lutteurs ak managers yeeg promoteurs yi ñuy waxtaan seen biir quoi. Mm-hmm. bañ a tëju rek. def ay règlement donte sax am na lu tax ñuy def loolu. mais bu ñu waxtaanee rek dinañ trouver terrain d'entente euh, kon li may wax rek euh, man kenn laay lancé un pour mu jàppale booy bi mooy Ahmed Aïdara mon ami moo frère euh, man ak yow si FM Sen TV jàppale ko tu maire waneel sa bopp jàppale ku bëgg sport nga ku bëgg làmb nga jàppaleel booy bi incha allah ñoom seen jàppale méttiwul yow xam nga loolu sax. waaw boo koy seen jàppale méttiwul yow Ahmed xam nga lépp. mbokk yi jaa ngeen jëf ñaa maa ngi lay gërëm bu baax a baax te oyofal nga ko nëmbër yëpp def nii dañ ko woo amul benn problème am na combat dafa war a dem entraînement mais may nañu ñu ñëw def benn entretien de vingt minutes ah méttiwul du ko yàqal dara ah, yàlla na ko yàlla may jàmm may jàmm armée bu géwél ba jour combat bu nekk combat bu réussir bu réussir total total total bu am réussite total ba ñëpp di coow seen combat waaw leneen nag duma ko wax folaayam <laughs> góor gi ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi jaageen jëf jaajëf waa Gunaas mawɗo jiinilam aabine rabina sofe